Allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد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 الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا للاختبار والامتحان منهم من ابتلاه بالمنع ومنهم من ابتلاه بالإعطاء ونبلوهم بالشر والخير فتنة إما بالإعطاء يعطيك ما تحب من الأموال والأولاد وإلى غير ذلك أو بالمنع يمنعك كل هذا اختبار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 الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس جميعا من الأنبياء إلى آخر من خلق بثلاثة أمور بالشهوة البهيمية فواجبنا نحو هذه الشهوة البهيمية أن نخالف هذه الشهوة ونجعلها في رضا الله الله كذلك ابتلانا نحن جميعا من الأنبياء إلى آخر من يخلق بالأوامر الشرعية افعل هذا ولا تفعل هذا هذا أيضا ابتلاء والقسم الثالث الله ابتلانا نحن جميعا بالمصائب القدريه الله يبتلينا بهذه الامور الثلاثه allah tiga ndendangen palle aɗo faare maxta lendangen palle axini allah gada haade mo remun taga gillo faaba adama ma dunagangiri aɗo jarabi ti siri sikki xanuye be agal rosondo mugani ken xanuye wona bakka yonki kiya liwugani wonaro allah liwuga ba walla an an o continue ne yonki keli wuña allah ɗo jarabi ti keya jarabe ñani imma anna laali woni anna ken botu walla anna yonkilli woni anna botu kene jarabe ya aga ɗo haademare mu batte bane sillandirna manne al awamir sharia allah ñamaru beni agadi ritikattoyana ikini annabi nyemmu ngani nantina jo fandoya al awamir shar'iyya khada ke dabari khama ke dabari jare be nyan ken kaya ya imma kebe aga tanna dabara anna dabari kebe aga tanna wara anna wara walla a a anna nyong kilung bot sikandina manne al masaib al qadariyya allah rukutuni allah gana rakuton dabari anga dugene ti rakuto kay ba walla anga balla kalle rakuto ñani agananku adan jarabi aganankuma adan jarabi fini ku fili an duna agananku adan jarabi ankuyi fo ken kondi ku ti remmi aba walla agadanku ti naburi aba walla agada fofo kinangani adan bi kempoa angorno allali ngani wala angorno anyon killingu al awamil shar'iyya ba adama bi wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raghadan ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها وفبا آدم الله رجع ربي إبليس قد كتي الله قد كيا يغا ما كيا iblis ga daga na kharo kebe allah ga kaba ada kenya da bare jare bi nyani allah ga kha o fa ba adama ayille katta allah na tubu ngani ayille de katta allah nanti allah yampi mahadi allah yampi mahadi kullu bin adama khata har mere musugal jumena gillo fa ba adama jare bi nyani annabi nyimunda muncu allah da bani sugaya allah da ragana jare bi ebe agantu tongoni ngani an an kengani kuda ina atindo ya nantu kude hade moro nyani iranti nyana allah ya abadan rukutoni nyan dibata ngani nabillahi ibrahim ne allah rukunga allah gadi jare bi ebe khaytu nabillahi yusuf allah gadi jare bi ebe khaya bi entu makatu wa nabi nyemenga sallallahu alaihi wasallama aga rinike duna al yetimi aga tampiye bebe wori namba gandan jamane nandan nokutana kesulu jarbi nya anga ngene walla anga balla idan hare mare min bire ndam mancu asulu jarbi nya aga na foki nangani adan jarbi aga nan kuma adan jarbi kha kan nokku munye nga akote ngani ngananku adi nganan ankuma kebe khote ngani munye be khote ngani Kenia allah ti gana na way nyanga nga birebe kebi anga mulla igana nyanga nga ni an kiti nga gabon ko bal innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna har mare mi ngana aga kiti banta sabari nga kenya kati akhotengen moko siri kha aga dan kuma la budda an kabarina sembentanga fofon tangani aga nan kuma fofoya la budda an cabarina kaga nan ku a ke ñamuyen yen dinanta bane ke ya akhiri faringa sallallahu alaihi wasallam a to daga ashaddu nasi bala'an al anbiya annabi nyimmu allah di ya jarabi dinanta hadmare men damancu kuure na koya nanti kure hare mo mu ñani xaya i kha iwa albalani ku no ngoni iwa jarabe ke no ngoni ashadu nasi bala'an al anbiya fal amsal wal amsal annabi ni mu dangi en palle be ni gado annabi ni mu palle khayfaru khirindanu karta allah dina allah ti khakha be gani naka jarbina de kebe tan nanga anak nyande an khirindi ne kata anyi me yonki nyaba an kata daraja muriya nyanya nyaba Angkirin khirindi kata soronga inan kanu aba walla an an kata allah ya ya. qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basirati ana wa man ittaba'ani an ngana khirindi ne khirindi kata allah makhar khirindi kata nyimme nanti nim kanwa imma hankam hirni kata allah dina jari be nyani aga do batte ngani kebe anga ko anto ngoni te nyani ba ango bol nyanga te ba allah ada kome suga ada njara bi aga kebe kinanga tuwa ko nyaga ni ba anan njara bi ne ya nabure nyaga ni ba angoruna limu walla ngoruna allah limu ada njara bi ada aga nan kuma khabe ngani anga sabar ni ba anna ille Allah malla a ah, a ah. kenyani sabari ngani akhini kike ngakati allah gana ko men ngani agana ku allah ra jarabiya yogo yi anta jarabiya ko tul ma allah ga ni ne mangu bakka kitte ngani bane nyan kengan yogo haye awalla mamana ana tabari ana allah mama ne manne ana dunge ne manne an allah mama nanti ashukru walhamdu allah nda mama anga de ke xere kini ngani yo ken nga xati nya kha yogo yi agana akuma a ken xati ana buta allah ya ta allah ya khenta allah ya khen solo ku yo aya khen ke bana ba ken xati a kha bi a bogu allah nya mari ngani يوي الله غنا جاربي أتنيا إنما أوتيته على علم عندي nke naabure kundu walla nke kite fo kundu nke mbe nyanda kini ngani nyugo nyu hora ku nyang nyanga nyanda ke kini ngani ngo sonta ku nyanda ke kini ngani koy qarun allah gada ku igati dangani eh an ka nyille katta allah yanna mama allah gada ku yeke be kini ngani a a ati ke yu hora ku ali hakil khore ali sembe kenya leke kininga kenga harmara mu lengi allah gani ku yanki nangani anna ko murti anna simon tan anyu khora ko nyale kinangani khata ko tayir allah gana allah gata qul allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir allah gana yankunu anan kunu bil afiya khagana kebe agare kinanga naga nale fa bakka makota be an to komal ne naga naga naga naga naga aga nalla ga ganan cankalima ana bak ana bus bakka allo khono akin gati ke khana jarabe ya aga do ko mum battengani hada mere men damanju akhini ona hakle kita breke damanju jarabe nya tere sugaya anga nati kona keta ha sasa anga tadingen khutba ke allah ganti temmutu angati ike allah mi ke jarabiti fo antey allah min ke jarabiti fofo antey yayi ma ando watte yey walla allah adan jarabiti yahare walla adan adan jarabiti renne walla adan jarabiti tahallema tere suga ye ganati examen nyani ko hani allah ga man jarabi antey allah tan ki temmutu angati ike fay antey allah rasul jarabiya tere suga allah an jarabiti fo wa idan ona ñille katta allah ga do jaraɓe te fiini e beeni wona yille katta allah de kenya ko la nabul wanakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wal naqsi min al amwali wal anfus was samarat وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفر انه يغفر الذنوب جميعا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله موك جولي سي غاناو ني سانت سيني بروم سبحانه وتعالى دي جولي سي يونس صلى الله عليه وسلم كون نيك سي نون نخم ادنا مي نات رك مو سي نيك سوني دافي اكزامي ليغي كون نيك سي ين نيكت لو خم di wax man awma benn nattu déedéet amul xam nga nattu bi fan la commencé ci sa baay aadama yàlla dafa ko natt mu ne lekkal lii bu lekk ni wal waaye iblis dafa ko nax nattu la yonent yi ñoom ñëpp ku nekk yàlla dafa ko natt am na koo xam ne feebar lak feebar rek la am na koo xam ne mbooloo mi yàlla ku nekk dafa nag yonent yi ñoom yonent sala sala mu ne ashaddu naasi balaan al ambiya ñi gën a nattu dëgg dëgg dëgg seen nattu bi moo ëpp lépp moo di yonent yi xam ngeen yonent sallallahu alayhi wa sallam jirim la woon ndeysaane dafa sonol ñu dàq ko ci makka dem madina loolu natt la natt yu bare bare bare bare ñàkk na ay doomam doom yu jigéen ay doom yu góoru yooyu yëpp nattu la ku nekk ci ñun yàlla dafa nattu bi nag ñaari façon la yàlla ya imma mu may la léegi est-ce que danga koy dugga dugal ci sa bànneex walla ci neexal yàlla li neex yàlla loolu ngay def walla sa bànneex rek moo tax ñetti façon natt moo am amna nat bo xamne xam ne al shahwal bahimiya modi di bugg-bugg bi nek ci saxol da ngay tëpp sa sa bànneex bi wala da ngay tëpp ndigal yàlla wala da ngay tëpp li neex yàlla lolu ben nat la amna benen façon nat al awamir al ilahiya defal li bul defli lolu aussi nat la da ngay def wala der lolu ben façon la ñetteel bi moo di alal masaib al qadariya yàlla dana indi benn natt boo xam ne natt bu tiis jafe ndax da ngay muñ walla doo muñ loolu aussi mu ngi foofu ku nekk ci ñun yàlla daf ko dangay da ngay da dellu waaye ban dangay ngay muñ ci natt bi wa bashir alladina amanu ida asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun man yàlla sama la nattee da ngay muñ ngir yàlla ndax affaire bi yaa imma nga mer nga ne waaw yàlla moom lu tax mu mu mu mu natt man lii kooku jaam bu bon la am na keneen koo xam ne dafay muñ am na keneen koo xam ne ar rida dafay nangu ci xolam am na ñetteel koo xam ne daal alhamdu wa shukru mu mu ne yàlla li nga ma natt de yaa xam feebar la walla ñàkk la wala leneen la yow doo juum li nga def loolu mu baax ci man man nangu naa ko kooku mooy jaam bu baax bi ku nekk idan mbokk jullit yi nañu seetal suñu bopp ñu delloo ci suñu borom subhanahu wa taala adduna day jeex adduna mi <laughs> day jeex bés bu ne dangay ngay ci yoof ñaata nit ñoo nekk ci foofu boo demee foofu amul benn wax foofu ñépp mu ngi tëdd moo tax am na benn place saay-saay boo xam ne ñu ne yëngu leen mu ngi foofu waaye wetam mu ngi ne mu ne nopp nopp noppil mu ngi foofu de mooy yoof yoof bi boo génnee ci àdduna ñu ñu suul la jeex na am amatuloo kaddu waaye boo nekk ci àdduna nag dangay ngay topp sa bànneex waaw moo tax mbokk jullit yi nañu seetal suñu bopp bu baax a baax a baax diine bi mooy leeral lépp boo xamee diine bi rek sa wax ak sa jëf ak li nekk sa xol dafay leer nañ moo tax alquran mooy wax walqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmaka min azulumat ila nur wa zakkirhum bi ayati llah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur léegi tey mu neex ëllëg mu naqar waaw waaye yooyu yépp ci yàlla la jóge nat la da ngay nangu da ngay dellu ci sa borom nga sant ko nga ne yow yàlla doo juum li nga ma def loolu mu baax aw ma dépense tey waaw ko am naa ko déedéet waaw nangu ko yooyu yëpp nattu la allahumma ij'alna min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك